Gaston Khalim nga teg sur pied projet bu am solo di ay mbër yu am solo dafa mel ni projet bi euh, dafa ñëw à son heure waaw euh, xam nga Gaston moom li ma naan retour am demande sociale la ndax danaa ko suma jumul 92 wala 94 bi ngay ñëw ànd ak waa Njàmbur moment bii lala la ji gën a soxla ndax ku ne xam ne ne làmb ji am na problème te soxla nañ nag promoteurs yi mel ni yow moo tax euh, bi Gaston ren démarché nañ ay combat parce que seen mbokk yi sonal nañ ma kone naan ma kan ngay doxal mu ne ma bu ma ci feeñ boobu am nañ combat yu doon démarché yàlla def antuwul ak jàngoro ji lëmb réew mi li ma naan corona bi dafa kar réew mi koroko kawatee ko des duñ ko nangu yàlla ko fi yàlla jëlee looloo tax euh, yooyu démarche dañ koy continuer rek ku ñu xam ne ne Bombardier Eumeu Sène jiboo woon nañ bañ doon xaar avance booy ñaa jotoon nañu wax ak moom bala gay Gaston am na ñu fa yebaloon yàlla def sottiwul démarche boobu nag lay continuer waat. mais jàpp nga ni affiche yi mu tëral ay affiche yu yombal yuy neex a lijjanti la. waaw xëy na làmb nag dara du ci yomb mais nañ fexe mu yomb dañ ci waxtaan bu du loolu sax am na ci xam ne comme yi nga tudd léegi tête d'affiche lay doon mais bëgg nañ puul bu mel ni Sa Thiès Yékini Senior Garga boo ci boo ci ñambaasee Modou Anta wala Moussa Ndoye dàquma laa jàng loolu njar ndéem lay doon comme xale yu ndaw yu lukkee ko nag xam nga boo jëloon ku ci mel ni Garga 2 doomu dango Mama Lamine boo ci ta raxee wuli deux wala double moteur pour bu saf sàpp lay doon nga jël nag yow maa ngi def ci def ci ay tête d'affiche yooyu nag dama ko tudd rek mais loo ci mën di daggal bëgg nañoo delloo siwaat claf boole ci ay tête d'affiche tête d'affiche bu ko defee làmb ji nekkaat fa mu nekkoon loolu daal mooy euh, xalaatam di ñaan yàlla sottal ko. yéen menal Cheikh boo Gaston li wax leer na la woon wónni na maanaam li yenn mbër yi daan laaj ay cachets yu excessif mënatul a waaw waxtaan lay doon rek. ndax dimanche boo toog ba réew ko yaa ngi perte at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar temps la su boobaa buñ ci waxtaanee mbër yi mën nañoo jël li fi ne di ñaanaat làmb ji yokkaat ndax ku ne xam ne làmb bu yéegee da ngay yéeg bu wàccee nga wàcc ndax dimanche boo toog ba réew ko yaa ngi perte. waaw c'était Papa Sow problème yi jot am ni ak euh, ak pandémie bi maanaam euh, des fois mbër bu duggee ci contrat ba toll fii euh, mu demee nii lan la mën a yàq ci yàq ci mbër. waaw métti na mais mais bii rek nga gis ñu reporter combat kenn waxu ci ndax lu toxal ziar général toxal daaka ji toxal Kazu Rajab làmb du ma ta wax ñëpp dañ ko muñ tey ñaan nag mu jóge fi ñu mën a continuer activité yi mais ku ne xam ne ne métti na ndax li nga yoroon yëpp def na ko ba mu des su ma jumul trois semaines nu combat wala deux semaines ñu ne la amatul ñu ne la mënatul a ne kañ la nga ne xaw ma ko looloo ci gën a métti mais ñoo yëpp nangu nañ joxe ay masque yëkkati ay don dimbale ñuy tane ñoom mbër yi moo tax dañ koy nangu philosophie xam ne loolu la yàlla dogal ndax borom bee wàcce nag dogalam ci kaw jaam ñi nañ ko nangu rek tey ñaan yàlla mu jëlee ko fi bu ko defee activité yi continuer